mbokki Sénégal li ngeen gis nag mooy le grand projet de Touba dans le cadre du tourisme religieux nous sommes en face de la porte d'entrée mu jàkkaarloog les logements sociaux dans les deux sens mu am TGV boo xamante ne dafay dugg Diourbel pour desservir toute la région de Diourbel li ngeen gis mooy la gare Silkul Jawahir mu nekk Diourbel ñu connecté ko ak aéroport international Khadimu Rasoul projet bi nag ngeen gis gare bi mi ngi déparé Saint-Louis desservir ba Ziguinchor ngeen jàkkaarloog l'aéroport bi connecté wu ak la gare Silkul Jawahir ñu tuddee ko aéroport Khadimu Rasoul c'est un aéroport international toujours dans le cadre du tourisme religieux ñu bëgg a développer ce grand projet pour dekkal ak yëkkati yëkkati bu am solo la région de Diourbel ndax ku xam Diourbel xam ne xur la Mbacké xur la Touba si boppam xur la et quand on parle de xur mooy la facilitation de la rencontre des métaux loolu nag dina permettre Touba dugg définitivement ci dans le cadre du tourisme religieux mu bokku ci les villes religieuses les plus attractives au monde moo tax en amont ñu décider togg ce grand projet dans le cadre d'un nouveau Sénégal Sénégal bu bees boobu nag euh, lii ñu ko jagleel moom moo méngoo ak ni àdduna doxee moo tax ñu samp ce grand projet di leen ko wan nag nga xamante ne il y un an et quelques mois ma jëloon ay techniciens yu mag ci àdduna bi des architectes et des ingénieurs en intelligence artificielle ma boole leen ñu ñëw Sénégal pendant six mois di jël les mesures dugg fépp ci réew mi pour xool naka la ñuy tëggee ces grands projet nga xamante ne mooy changer xarkam kanamu bépp région ci réew mi loolu la ñuy jublu woon ci ce grand projet ngeen jàkkaarloog moo mbokk yi héliport al muntaxa héliport al muntaxa foofu la hélicoptère yi di wàcce ndaxte Touba Mbacké ak jurbel ci boppam la région dañu am attraction boo xamante ne képp koo xamante ne yaa ngi nekk dans les affaires nga nekk ci ay minerais nekk ci pétrole nekk ci diamant di nga am soxlo di ñëw Touba saa moo tax ñu bëgg dans le cadre de ce développement de ce grand projet ñu waajal sunu bopp ba suñ ci tollee ku fi ñëw ñëwati ni nga bëggee sa sa mbir doxee ko ni nga bëggee mu gaawee noonee lañu la ñu sampee dëkk bi ba soo jàkkaarloowee ak moom eh, sa xel dootul dem fenn fu dul fii nga jàkkaarlool ndax lépp loo xamante ne ay mécanisme yuy permettre développement yuy permettre ngay gis tolluwaayu dayu réew lañu ñu nar samp foofu pour euh, naturellement réelement ñu dem vers développement bi ñu bëgg lii ngeen jàkkaar lool mbokk yi mooy le centre commerciale Al Baraka mun nañ ko tuddee aussi centre commercial Ikfini junni magasin moo ci nekk centre commerciale bi nag mi ngi nekk biir Touba junni magasin yi dana dalal bépp xeetu lu ñuy jaay ci àdduna bi te mu méngoo ak une ville religieuse moo tax ñu samp ko ni sampee ci biir Touba euh, fexe ba nga xamante ne mooy nekk centre commerciale bi ëpp solo en Afrique de l'Ouest ba pare dugg dans le top 10 des centres commerciaux yi ëpp solo ci Afrique moo tax ñu samp ko fii beneen bi nga xamante ne mu ngeen jàkkaar lool mooy le musée Cheikhul Khadim nga xamante ne dañu am yéene samp ko fii palais Ndiouga Kébé nekkoon wala su fekkee ne terrain boobu disponible am na fu ñu ko bëgg a samp waaye ci biir Touba ndax musée bii kat mbokk yi ngeen jàkkaar lool musée bi dafay dugg ci Guinness World Record le livre des records mondiaux musée bi bokk na ci musée yi gën a taaru ci àdduna bi soo duggee ci biir dina retracer jaar-jaaru sëriñ Touba ci exil bi Ndar ba Lambaréné dina la wanaale tamit ay xasida Serigne Touba di nga am son boo xamante ne ñi ngi ko ñi ngi ko nar lal ci benn mécanisme de sonorisation bu tudd Bang Olufsen nga xamante ne mooy son bi gën a leer ci àdduna bi moom lañu bëgg lal soo duggee ci biir ba takk kaski yi nga xamante ne moom la ñu jagleel sa musée di nga dégg xasida yi ci làkk bu ne waaye di nga xool tamit di gis en trois de jaar-jaaru Serigne Touba ci biir exil bi ak lan mooy les fondamentaux de la communauté mouride yemuñu foofu ci mbir mi musée bi soo ko xoolee mi ngi am minaret minaret boo xamante ni moo gën a gudd ci àdduna lii moo tax sax d'ailleurs musée bi euh, dugg ci Guinness wol Record ndax minaret bi dafay def deux cent trente de hauteur minaret boobu nag soo ko xoolee léegi mu daal di feeñ ci ce grand projet moo nekk nii d'ailleurs ngeen gis ko mu nekk en marbre nekkale en cristal au sommet mu tudd le minaret de la félicité soo ko jëlee am na ascenseur bu lay conduire au sommet moo lay permettre nga fekk fa ay xasida Serigne Touba ñu def en or nga mun a visiter la vie de Serigne Touba ses œuvres colossales et sublimes loolu ngay am ca kaw mu nekk en cristal mu nekk le plus beau minaret ci àdduna bi daal di intégrer le World Record euh, Guinness World Record incha allahu taala yemuñu foofu mbokk yi fi ñu def musée bi def fa sa minaret à côté dañ fa def le Mouride Global Finance Mouride Global Finance nag moo nekk nii ngeen gis bâtiment bu taaru bi nga xamante ne 33 étage la en référence à dundu soxna jaariyatullahi ci kaw suuf musée Mouride Global Finance mooy gérer les actifs mourides lii nag lépp la ngeen dégg ñu wax ko mi ngi nar a nekk ci ndigalu xalif général de mourides bu tedd yal na ko fi te mu ànd ak wér Mouride Global Finance moo nar a aussi organiser le la visite virtuelle en cérémonie officielle du musée Khadimu Rasoul nga xamante ne en vingt quatre heures mi ngi jur deux cent millions de dollars avec les algorithmes de l'intelligence artificielle ngeen jàkkaarloog ak ce ce lac artificiel bu ñu concevoir entre le musée euh, le minaret et le Mourides Global nag la mooy la mosquée de de Touba nga xamante ne dañu ko nar a euh, yeesalaat yeesal bu am solo tente yi ngeen jàkkaarloo léegi mooy tente ay tente intelligente lañu nga xamante ne ak les algorithmes de l'intelligence artificielle day capter lépp luy tàngoor ca kaw ba pare transformé ko en fraîcheur ci suuf dafay jàpp nit ba pare jàppale marne bi lii ngeen gis mooy coupole bi nekk ci kaw jumaa ji nekk ci kaw euh, xabru Sëriñ Tuba nga xamante ne trois cent treize cristaux lañ ko liggéeyee li tax mu am solo nii soo nekkee ca kaw ca kaw minaret bi da ngay jàkkaarloo ces cristaux trois cent treize lay nekk façon de cristal nga xamante ne dafay mel ne lu tas daal di nekk ci kaw pla euh, ci kaw mosquée bi yëpp balaa laale le marbre que nous avons placé ce marbre que vous voyez aussi vient de Kédougou lii mooy ce grand projet euh, bi nga xamante ne moom lañu lal aussi ci mosquée euh, Serigne Touba bu tedd bi nga xamante ne dina yanjal mooy diggante rond point bi ñu jàkkaarloo aussi naka la ñu def la résidence Cheikhul Khadim moo nekk ni ngeen gis suñu jàllee ci rond bi la résidence Cheikhoul Khadim ñu nar ko def mu nekk ce palais somptueux fi nga xamante ne dañu fiy dalal ay gan la ngeen seen ca biir bâtiment bu weex ba la ngeen seen ca ginnaaw mooy la résidence du xalif moom la ñu nar a samp teg ko ba nga xamante ne dafay méngoo ak développement du tourisme euh, religieux mbokk yi lii mooy ce grand projet bi ñu leen di proposé pour la ville sainte de Touba nga xamante ne suqali ko mooy suqali koomu sunu réew moo tax ñu ngi leen di sant bu baax di wéy di leen présenter ces grands projet que nous avons initiés pour un autre Sénégal incha allahu taala jërë ngeen jëf